dara dara mayu ya ko yaa rien que lu nga xam ne wax lu ci taxaw amut moom kay xanaa takk naa jabar dindi nay problème parce que maa ngi rappelé wu ni bindoon wax ma ni ma dañoo bëgg comme takk nga jabar données yi changé na nga jël Carrefour ñu jël lok Afrique ma ko bind ma mu bind ma ko ko envoyé ko ci sama adresse email envoyé ko avocat bi yooyu yëpp mu def ko envoyé ko ci suba sa ba ma woowee ma ko mu ba kenn di madon doon parce que suñu papa vraiment nit ku déew ne di ko doon vraiment li dox ci li nga xamante ni loolu la euh, euh, tribunal di doxal daal jaaxle naa ci trop ci li nga xamante ni loolu moo am fan yii quoi xeex ko jusqu'à boobu parce que itam yàlla am na loo xam ne boo ko tegee ci sa loxo yaa ko moom boo ko mayewut sarxe ko sarxe ko bu nit ñëwee ni da koy jël di nga jàkkaarloog moom sa portable sax boo ko yoroon fii tey tase benn agresseur bu di ko jël bu ko bëggee jël di nga taxaw xeex moom soit doom la soit xarit la soit mbokk la soit lu mu munti doom ma chaîne bi nga xamante ni vraiment am na yoo xam ne du ko bàyyi peut-être ñi ma xamul ñoo ma keek yooyu parce que xaw ma li du liggéey ñibbi sama kër bari na ñoo ñu xam ne xaw ma li lii maa ngi koy soog a def tey te jaaxle moo tax ma def ko mais su tax xalaatuma ko sax di ko def médiation yooyu def nañ ko partout kilifa bu nekk wax na ci wax nañu ci waaye nag médiation bala nga koy mun a def itam wax li nga xamante ne yaa ko moom ñu jox la ko parce que kenn du jur sa doom di ko sànni kenn du jur sa famille di ko di leen sànni boo sañoon tey boo amee sa famille dinañu nekk ci sa wet mais bu problème amee aussi da nga koy régler parce que li mu def li ñu def tey bu ñu ko defoon keneen koo xamante ni jàmbur la sax du ma ko nangu duma ci ànd ak ñoom kon bu ñu ma ko defee dinaa taxaw régler ko soo bu ëllëgee loolu ñoom duñ ko xalaata def

laa ko ci may 3 pour cent te man maa ko ko may parce que boobu aussi dañu ni société financière dafa war a kii ak yooyu quoi ma laa ko ci may benn 3 pour cent la ci am amul ci leneen loolu itam jógewuma ci ba léegi parce que man ku ma xam-xam na ni lépp lu may wax vraiment euh, dama koy def ah bu ko yàlla ci loolu laa nekk et moo tax ma ne la pendant 3 ans et demi ñu ngi ci actuellement nga di ko seere boobu ba léegi mais xam nga jël sa baay alors. Euh, yobuko ko dig 11h ci suba lañ ma jël ci sama bureau joxuñu ma convocation te dégg nga li ma la wax ci commencement wax bi daf mani alors fo jaar parce que ma ngi won dina jël ci sama première question ak ak enquêteurs yi dañ ngi la doon jël ci pour indi le fi directement enquête la mané len leen sàccu ma rëyu nit jaayu ma ngeen di ma jël ci te min mi moy la fa génne ci guddi. parce que moy bi nga xamanteni ni tribunal jox nañu deug pour ñu dem wara a installer ki nga xamanteni mom mo fay nekk. provisoirement parce que xam nga fii aussi dafa am lu muy doxee ci service financier service financier du caagin da ngay d' accord rek a jën directeur directeur général rek mu daal di dem installé noonu et tout ça da nga doon dem rek pour que vraiment wane ni kii moo fi war la moom la ñu jël et tout ça mais dafa am beneen kilifa boo xamante ni mooy wax ci installation service financier

bu bañee ñu di ko déloger et tout ça là te bu kii woon te kii ñooñu ñu laaj ñu mën leen non na viser bi comme ànd ngeen ak viser pour xool lu muy def na constaté bàyyi te ngeen dem parce que ñun wax dëgg yàlla lépp lu ñuy def dañ koy jéem a teg ci yoon ndaxte euh, yoon lu am rek dañuy kii ca loola nag la ñu retourné waat dem demandé waat tribunal pour que mu autorisé ñu bu ñu demee tey. def loolu mu bañ ñu delloosi ko carrément pour kii ak yooyu quoi tribunal maye loolu ñu waroon a delluwaat pour présenter ko ko rek pour que mu delluwaat toogaat xaaraat waa banque centrale et tout ça alors ci le premier président cour d'appel binde benn ordonnance ni il faut que ñu joxe 3 milliards au loolu mooy waral tey lii mu jaaxal ñu